ñu fësal boppi xibaar yi njiiti réew mi président Adama Barrow tukkib nemmeeku bi nga xam ne mu ngi amal jamono ji si ne ñoo rek Lower River Region ñoom i nag daal dalal nañ ki nga xam ne moo di daal njiiti mi nag daal amal ko fa daal dina xamal ñi nga xam ne ñoo di waa Lower River Region rek li nga xam ne moo di yokkute yi nga xam ne tàmbali na ko fa bokk na si li nga xam ne moo di yoon yi nga xam ne tàmbali na ko fa tabax ak li nga xam ne moo di yaatal courant gi foofu si rek Lower River Region nag daal mbir mi si rek daal jëm kanam la dem la moo dem bu ñu sukkandikoo si kaddu yi moom ki nga xam ne moo di daal njiiti réew mi dinañ ko yaatal si li nga xam ne moo di daal xibaar yi xam ne nag daal ñooy nag yëngu si rek wàllu lakk ak daal wàllu li nga xam ne moo di weer jën si rek tefes si katongeeg diwaanu li nga xam ne moo di gunjur gi ñoom nag daal dinañ njëriñoo si li nga xam ne daal moo ay jumtuwaay yoo xam ne leen ko nag daal jagleel ñoom soxna yi nga xam ne nag ñooy yëngu si rek wàllub daal lakk ak daal li nga xam ne moo di daal weer li nga xam ne moo di daal jën bi nga xam ne ay jumtuwaay yu méngoo ak li nga xam ne moo di daal jamono lañ lañ leen nag daal di jagleel si nag daal taxawaay yu li nga xam ne moo di rek daal mbootaay boobu ñu xamee rek daal si ECOWAS ak tamit li nga xam ne moo di daal jàmmaan embassy dinañ ko atal si biir li nga xam ne moo di daal xibaar yi ki nga xam ne nag moom moo jiite li nga xam ne moo di yëngu-yëngu bi nga xam ne jamono ji takkadeer yi nag ñu koy amal mu rek daal yaatal bi nga xam ne moom la ñu nag daal yaatal li nga xam ne moo di daal mbedd li nga xam ne moo di daal réew mi moom li nga xam ne moo di daal mbir mi nag daal dina wane li nga xam ne moo di daal seen nag yëngu bi nga xam ne ñu ngi koy nag daal amal yi nag daal yaatal li nga xam ne moo di daal yoon yi daal di di daaneel li nga xam ne moo di daal ay mbaar ak tamit li nga xam ne moo di daal ay béréb yoo xam ne daal daanaka si rek daal kaw yoon yi la la daal di nekk wax na ne lii nag am mbir la moo xam ne duñ ko nag yemale rek si li nga xam ne moo di daal teeru gi waaye nag daal mbir moo xam ne uh, daanaka nag daal dinañ ko nag daal amal si biir li nga xam ne moo di réew mi yëpp dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yii ak yeneen gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal alxames la fanweeri fan yi si weeru novembre atum 2023 di atum ñaari junne yi ñaar fukk ak ñetta ñu dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen indil ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi njiiti réew mi président Adama Barrow tukkeeb nemmeeku bi nga xam ne jamono ji mu nga xam ne daal réew mi askan i nag daal mi moom njiiti réew mi ndaje yi nga xam ne ko fa foofu si rek Lower River Region xamal li nga xam ne askan rek li nga xam ne moo di yokkute yi nga xam ne nguuram gi daal dinañ ko tàmbali si suufi Lower River Region bokkan si li nga xam ne moo di daal liggéey li nga xam ne moo di daal ay yoon li nga ne daal lu wa River Region daal mbir la moo xam daal lu muy si li nga xam ne moo di tunda googu di rek daal lu wa River Region moom ki xam ne ah, moo daal njiiti li nga xam ne moo di daal réew mi bokk na si nag daal fi xam ne fala amal li xam ne moo daal ay ndaje bokk na fi ñu xamee si ah, na fa li nga xam ne moo di daal ab ndaje boo xam ne xam ne ñoo dëkk si diwaanu Jara East Jara West ak Jara Central teewe woon nañ xam ne moo di daal ndaje yooyu moom njiiti réew mi daal askan wi foofu si rek lu wa River Region nag daal dalal ko ah, dalal xam ne moo di daal ayib si li nga xam ne moo daal ndaje yi ki ki si Ali Kumba Ba nga xam ne mooy alkaali wala borom dëkk bu rek Woulingaraba moom nag daal dalal na njiitu réew mi di président ak li nga xam ne moo di délégation wala gàngoor gi nga xam ne moom la nag daal di àndal moom ki nga xam ne moo di alkaali wala borom dëkk daal dina tamit fésal li nga xam ne moo di daal seen ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoom askan wi ñu ngi koy dunda bokk na si li nga xam ne moo di daal ay nag daal yoon yu bon bokk li nga xam ne moo di daal ñoom ñi nga xam ne ay baykat lañ ñàkk li nga di ab jafe-jafe la bokk na si li xam ne joyti na ko moom borom dëkk mooy nag li nga xam ne moo di daal seen daal daanaka nag daal amuñ fa daal li nga xam ne moo aji daal si wàllu li nga xam ne moo di courant goo xam ne daal doyut loolu daal moom borom dëkk bi ñu xamee si Ali Kumba Ba daal dina ko joytu si kanam ki nga xam ne moo di daal njiiti réew mi keneen koo xam ne tamit daal dina yëkkati kàddu si rek ndaje mi Adja Sadio Sabali moom nag moo wax si turi li nga xam ne moo di daal soxna yi moom na daal dina wax rek xam ne moo daal soxna yi solo lool gannaaw bi nga xamee wax ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu si rek langu li nga xam ne moo di daal politique bi faaw nag daal nga lénga lëkkalu ak li nga xam ne moo di daal soxni daal su ko defee daal nga mën a jëm kanam muy sàkku daal njiiti réew mi ak nguuram gi ñu taxaw li nga xam ne moo di soxna yi muy sakk tamit li nga xam ne moo di nguur gi taxaw li nga xam ne moo di daal béykat yi surtout ñi nga xam ne ñoo féete si rek wàllu li nga xam ne moo di daal mbéy moom ki nga xam ne moo di rek soxna si nga xam si Sadio Sabali daal dina tamit sàkku si nga xam ne moo di njiiti réew mi nag daal mu dooleel li nga xam moo daal soxna yi tegg leen seen i ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy nag jànkuwanteel ki nga xam ne moo wax si turi ndaw yi Karim Sow noonu lay wuyoo moom i nag daal fesal na jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñi nag ñu koy nag daal di dunda daal dina nag daal ñaawlu li nga xam ne moo di daal tukki gu jaaru yoon gi nga xam ne ndaw ñi nag ñu ngi koy amal si li nga xam ne moo di daal jamono ji di utali réew li nga xam ne moo di daal tugal yi wax na sa daal euh, daanaka nag daal ñoom seen nag daal tunda googu nag daal mbir mi dafa mel ni fala nag daal di ëppee moom ki nga xam ne euh, moo di daal euh, Karim Sow muy tamit sàkku si li nga xam ne moo di nguur gi na daal war nañoo taxawu li nga xam ne moo di ndaw ñi jàppale leen bu baax a baax bokk na si daal li moo sàkku mooy nag daal ndaw ñi xam ne moo di daal métier fexe tamit di utal li nga xam ne moo di daal ay xëy bu ñu sukkandiku rek si kaddu yi moom ki ñu xamee nga xam ne moo di ministre wala jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk wérgu yarami askan wi docteur Ahmadou Lamine Samaté moom sax daal di docteur Ahmadou Lamine Samaté muy wax si li nga xam ne moo di ndaje yi moom ki nga xam ne moo di daal docteur Ahmadou Lamine Samaté nag daal dafa wax nag daal di daal di tontu ñi nga xam ne ñooy joytul aju si rek wàllu li nga xam xam ne moo di daal ay bérébu li nga xam ne moo di daal fajukaay mu nag moo di daal yokkute yi nga xam ne nguur gi amal nañ ko si rek wàllu bi gi moom sax daal dina war li nga xam ne moo di si rek daal juróom-ñaar yoo xam ne daal jamono ji nguur gi sumba nañ ko si nag daal tunda gu nekk nag daal sumba nañ li nga xam ne moo di daal fajukaay moo ministre Samata tamit muy nag daal wax ne li nga xam ne moo di taxawal nañ ab daara joo ne dañ fay jàngalee lu aju nag si wàllub li xam ne moo daal euh, euh, Bansang mu nag daal continuer wax moom docteur Amadou Lamine Samate da wax ne li nga xam ne moo di nguuri président euh, la ba tax na daal wax na ne li nga xam ne moom la nguur gi war a dépensé ni ki déwén di atum 2024 am na daal ab pàcc bu mag boo xam ne dinañ ko jagleel lu aju nag si rek wàllub li xam ne moo di gi ministre wala jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk mbiru si rek ndaje mi eh, daal di eh, wax li nga xam ne moo di baykat yi nag li nga xam ne moo di nguur gi am na daal ab nag njàppandal yu bëree bëri yoo xam ne nguur gi amal nañ ko jëmale ko si li nga xam ne moo di daal eh, baykat yi mu nag daal li nga xam ne mooy firndeel loolu mooy li nga xam ne moo di nguur gi laata nag nawet bi doon agsi nag nguur gi daal teel nañoo nag daal tàmbalee jaay li nga xam ne moo di daal engrais jaay ko tamit seeg njëkk loo xam ne béykat yi nag daal daanaka ñu bëri si ñoom jot nañ ko daal dina waxtaan li nga xam ne moo di nguur gi fexe nañ tamit jébbal béykat yi li nga xam ne moo di aju si rek wàllu jiw joo xam ne dañ leen ko jox te nag daal laajoon leen si dara moom ki nga xam ne moo di docteur Demba Sabali mu nag daal di continuer tamit li nga xam ne moo di nag nguur gi amaana rek daal am na lu bari loo xam ne war nañ koo def si rek wàllu waaye nag tamit am na lu bari loo xam ne daal dinañ ko def moom ki nga xam ne moo di njiit réew mi di président Adama Barrow moom i wax si rek daal ndaje mi di daal di eh, eh, rafetlu bu baax a baax li nga xam ne mu askan wi uh, dalal bi nga xam ne moom lañ ko nag daal di uh, dalal mu nag daal uh, fisal tamit déglu daal wala sax mu daal xam ne dég déglu na daal li nga xam ne moo di nit ñi li nga xam ne moom lañ waxta waaye nag daal xam ne nag li nga xam ne moo aju nag si ak wàllub li nga xam ne moo di daal jàppale li nga xam ne moo di jigéen ñi am na daal ab nag daal mbir mu bëree bëri boo xam ne nguur gi nag daal def nañ ko si pour daal taxaw li nga xam ne moo di daal soxna yi moom njiiti réew mi nag mu nag daal di continuer daal mu ne naam ñi nga xam ne ñoo di soxna yi wala jigéen ñi ñu am solo lañ si rek langu li nga xam ne moo di daal politique bi képp koo xam ne daal ànd nga ak ñoom faaw daal li nga xam ne moo di daal ndam bette na daal wax na ne lu si wàllu taxawu jigéen ñi nag daal mbir la moo xam ne nguuram gi dinañ ci nag daal eh, génn nag daal di yokka eh, eh, seen nag daal wàlla bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal kàddoom daal dina tamit diggéene nag li nga xam ne moo aju rek wàllu yaatal courant si biir réew mi yëpp daal fi léegi atum 2025 daal jàppana daal nguur rew mi yëpp daal euh, dina dina daj euh, courant bu ñu sukkandekoo si li nga ne euh, moo di daal ay kàddoom lu aju tamit si rek wàllu ndaw yi nga xam ne ñu ngi nag daal na ne moo xam ne nguuram gi rafet lu wuñu ko te nag daal mbir la moo xam ne nguuram gi dinañ def seen kéem tolluwaay kattan nag daal indi si li nga xam ne moo di daal ab safara daal den tamit yëkkati kàddu jëmale ko si ndaw ñi ne daal ndaw ñi tamit war nañoo fexe li nga xam ne moo di liggéey yi nga xam ne am nañ ko fii si biir mi tamit ñuy fexe di si nag jéem a dugal seen i daal loxo gannaaw xamee sax moom wax na ne mu ngee nag joxe li nga xam ne moo di misaal ne nag moom euh, naam utali woon na réewu tugal yi waaye nag dafa dellu si waat si li nga xam ne moo di daal ab réewam tàmbali li nga xam ne moo di daal ab business am wala daal ab yaxantoom bu ñu sukkandeko rek si li nga xam ne moo di daal ay kado moom ji ci réew mi ne daal euh, li nga xam ne moo di tukkeeb nemmeeku boobu bi nga xamee ne euh, euh, foofu rek daal daal dina dem si rek daal beneen dëkk bi ñu xamee si kiw na la ak li nga xam ne moo di daal délégation am bi si ndaje yi nga xam ne amal na ko fa ñi nga xam ne ñoo ne askani Kiang East West Central eh, teewe woon nañ li nga xam ne moo di daal ndaje mi li nga xam ne moo di askan wi fisal seen i ay nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nag daal eh, jànkuwanteel bokk na si eh, li nga xam ne moom lañ nag daal joytu surtout béykat yi mooy nag daal ñàkk li nga xam ne moo di ay jumtuwaay ak tamit li nga xam ne moo di daal ñàkk nag daal courant gu doy ak daal ñenn si askan wi jàppane daal ba léegi nag mun nagu nag daal am ndox nag mu sell moo xam ne dinañ ko nag daal mun nag daal di jëfandikoo moom jiiti réew mi nag daal di président Adama Barrow daal dina wax daal li nga xam ne moo di daal euh, diwaanu Kiang West nag daal am na daal ay nag daal yoon yoo xam ne tàmbali nañ ko fa euh, wax na daal li nga xam ne moo di guddaay yoon yooyu euh, daal daanaka buñ ko doon xayma tal toll na si rek daal juróom-ñett juróom-ñett fukk si li nga xam ne moo di daal kàddoom daal dina wane fi ñu xamee si Kiang Kabada woo xam ne daal tàmbali nañ ko fa guddaayam toll na si téeméeri kilomètre bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom moom ki nga xam ne moo di njiitu réew daal dina sumba yëpp si rek daal li nga xam ne moo di ay yoon buñ doon xayma nag daal buñ ko doon gi nag moom ki nga xam ne moo di daal njiiti réew mi nag daal li nga xam ne moo di daal nguuram gi bi nga nag xam ne moo di daal kiyang ñu nag li nga xam ne moo di ay yokkute bokk na si li xam ne moo di daal yaatal fa lu aju nag xam ne moo di li nga xam ne moo di daal courant ba moom ki nga xam ne moo di daal dina xam ne ne li nga xam xam ne moo di yokkute yi nga xam ne nguuram géeng koo def nag daal dina dinañ def seen kéemtaluwaay kattan euh, fexe nag daal réew mi yëpp nag daal yokkute yi nag daal daal di fa nag daal di àgg bu ñu sukkandiku si kàddu yi moom ki nga xam ne moo yilif réew mi di président Adama Barrow ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar soxna yi nga xam ne ñooy nag yëngu si rek wàllub li nga xam ne moo di lakk ak weerab li nga xam ne moo di jën si tefesu Katong gi ak diwaanu li nga xam ne moo di daal Gunjur ñoom daal njëriñoo nañ si li nga xam ne moo di daal ab boo xam ne dañ leen daal di amalal li nga xam ne moo di ay jumtuwaay yoo xam ne daf leen di yombalal ñoom ñi nga xam ne ñooy lakk ak ñoom ñi nga xam ne ñooy nag weer li nga xam ne moo di daal seeni ay nag daal jën bétan daal li nga xam ne moo di nag daal jumtuwaay yooyu nag daal biñ ko amalee ba noppi daal dinañ ko nag daal di dalloo ñi nga xam ne ñoo ko dalo mu di mbootaay Afrique bi ñu xamee si ECOWAS commission seen nag daal banqaas bi nga xam ne ñoo nekk fii si biir réew mi ñoo si lëkkalu ak li nga xam ne moo di jàmban embassy bi daal di amal li nga xam ne moo di daal jumtuwaay yooyu li nga xam ne moo di daal mbootaay Afrique bi ñu xamee si rek daal ECOWAS lu lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di projet yu mel ni ab mbir la moo xam ne dañ ko nag daal di sumba bett na diwaanu li nga xam ne moo di daal kaatong soxna yi nga xam ne ñoo fay yëngu si rek wallu li nga xam ne moo daal weer li nga xam ne moo di jën amalal lañ li nga xam daal moo di ab jumtuwaay boo xam ne jumtuwaay euh, bu mucc nag daal li xam ne moo daal ayib la nga euh, na ñëw daal àndul ak dak li nga xam ne moo di daal wér-gu-yaram gannaaw bi nga xam ne daanaka ñoom soxna yi dañ si sonna te tamit ñi xam ne ñoo aji jëfandu di consommation euh, daanaka amaana sax daf leen daa indi li xam ne moo daal ay nag daal jafe-jafe waaye jamono ji amalal nañ leen nag daal ab jumtuwaay bu mucc ay boo xam ne mun nañ nag di fa weer li nga xam ne moo di seen ay jën di diwaanu tamit Gunjur soxna yi nga xam ne tamit ñoo fay yëngu si rek wàllu lakkab jën ñoom it daal amalal nañ leen li nga xam ne moo di ab jumtuwaay boo xam ne ñu ko tuddee noppal ab jumtuwaay la xam ne daanaka nag daal daf leen di yombalal pour rek ñuy lakk li nga xam ne moo di daal ay jën si rek daal anam yoo xam ne daal duñ si sonn te nag daal duñ li nga xam ne moo di matta gu bëri te tamit li nga xam ne moo di tàngaayu safara seeg saxaar si du leen nag daal di sonal ba na si rek daal bés bi nga xam ne ñu ngi ko doon nag daal di dalloo am na ñu bëri ñoo xam ne yëkkati nañ fa kàddu si ndaje mu amee si euh, mooy jaama ambassador to the Gambia moo toogal réewum Jammeh fii si biir réew mi moom nag euh, daal dina wane li nga xam ne moo di jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ jagleel li nga ne moo di soxna yi ay jumtuwaay la yoo xam ne euh, daanaka nag daal jumtuwaay yi nag yu mucc ayib te nag daal mbir la moo xam ne daanaka dinañ ko nag yaatal si rek daal bépp béréb boo xam ne soxna yi daal ñu ngi fay yëngu si rek wàllub lakka wala weerab li nga xam ne moo di daal ay jën ki ñu si Christophe Messinga nga xam ne moom nag consultant la si li nga xam ne moo di projet bi wala sax bokk na si ñi nga xam ne eh, ñoo nag daal fent li nga xam ne moo di daal mbir moom nag daal xam ne di daal soxna yi laaj leen seen i ay buga buga ak tamit li nga xam ne daal moo leen di soxna yi eh, si lañ nag daal am xalaatu nag daal di eh, fent li nga xam ne moo di daal jumtuwaay yooyu noonu bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di kàddoom Mbiyaata Lili French nga xam moom mooy ECOWAS resident representative moom moo toogal kuréeli ECOWAS googu moo leen toogal fi si biir réew ji nag si rek wàllub li nga xam ne moo di rek lakkab jën ab mbir la moo xam ne daal daanaka mbir la mu siiw la boo xam ne eh, nemmeeku nañ ko si suuf li nga xam ne moo di Afrique moom sa wane ne fi nga xam ne fa la jógee nag daal lu aju si rek wàllub lakkab jën eh, bëri na fa lool ba tax nag wax na ne lu mel ni nag daal lu am solo te nag daal mbir la moo xam ne dina yombal yombalal soxna yi si rek eh, yëngu-yëngu yi nga xam ne moom la ñoo yëngu Fatou Mané nga xam ne moom moo wax si turi soxna yi moom daal dina wane li nga xam ne moo di jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ leen amalal ay jumtuwaay la yoo xam ne daal lu leen di noppal la te nag daal jaajëfal nañ euh, bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo leen amalal li nga xam ne euh, moo di daal euh, jumtuwaay yooyu noonu ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar ki nga xam ne moom nag moo jiitee li nga xam ne moo di yëngu bi nga xam ne jamono ji takkadeer yi ñu ngi koy amal di daal yaatal li nga xam ne moo di mbeddi réew mi di daal daaneel li nga xam ne moo di daal ay mbaar ak yoo xam ne daanaka dafa nag jege li nga xam ne moo di daal kow li nga xam ne moo di daal yoon yi moom nag daal dina wax ne li nga xam ne moo di nag daal yëngu-yëngu bi nga xam ne ñu ngi koy amal nag daal mbir la moo xam ne duñ ko nag yemale si teeru gi waaye nag daal dina dinañ fexe mu nag daj biir réew mi yépp nag bi nga xamee ne daal bi nga xamee ne tàmbali nañ ko léegi toll na si rek daal juróom benni li nga xam ne moo di bés yu ay ba tax nag daal li nga xam ne uh, moo daal yaatal bi nga xam ne moom la ñoo yaatal mbir mi nag daal tàmbali nañ ko si suufi KMC ak daal West Coast uh, uh, region ba tax ki ñu xamee si Bakary Mané nga xam ne moom moo jiite mbir mi moom nag daal dina wax ne rek daal mbir mi daanaka ba léegi ñu ngi si Greater Banjul area bi maanaam ñu ngi si teeru gi waaye nag wax ne nag daal ab mbir la moo xam daal si biir réew mi yëpp nag daal lañ koy amal moom sa daal dina wax daal jamono ji nag daal daanaka Euh, fi nga xam ne euh, fa lañ nag daal di toll mooy nag diwaanu li nga xam ne moo di daal Sukuta te nag daal si nag daal ñaare bés yu ay yi nga xam ne moom ñu digmal dinañ dem si yeneen i li nga xam ne moo di daal béréb bu ñu sukkandeko si li nga xam ne moo di daal kàddoom moom nag daal dina wax nag daal jamono ji béréb yi nga xam ne daal ñoom lañ nag daal yaatalagu mbokkana si euh, fi ñu xamee si Westfield Birkama Highway Serekunda Market Tipa Garage Road Birkama Main Road ak si marché bi euh, moom daal dina wara daal jamono ji euh, ñu ngi ci rek daal yoon wi nga xam ne moom lañ xamee si Sukuta Jabang Road fa lañ toll si li nga xam ne moo di jamono ji moom Mr Mané daal dina wane li nga xam ne moo di yëngu-yëngu bi nga xam ne moom la ñu amal daanaka ñu ëpp si askan wi rafetlu nañu ko mu ne daal am na benn benn nit yoo xam ne daanaka nag daal dañ daal di diikant li nga xam ne moo di daal mbir mi mbir mi sax daal daanaka nag daal buñ seetee si rek biir li nga xam ne moo di askan wi am na ñoo xam ne bëgg nañ ci kontaan nañ ci waaye nag am na ñoo xam ne mbir mi euh, daal dinañ ko nag daal di euh, euh, ŋàññ surtout nag daal ñi nga xam ne daal dañ leen nag daal yàqal seen ay béréb yi nga xam ne fa lañ doon nag daane li nga xam ne moo di daal seen doole moom daal dina war a la moo xam ne mbir mbir la moo xam ne dañ koy nag yaatal si biir li nga xam ne moo di daal réew mi yëpp moom sax daal dina wone fi nga xam ne fa lañ xamee si rek daal Westfield traffic light jàpp fi ñu xamee si Kairaba Avenue mu ne daal daanaka euh, nag daal ñu bëree nge wax xanaa mbedd duñ fa dem mu ne daal mbedd la boo xam ne daal dinañ fa dem ak lu mu yàgg-yàgg mbedd boobu tamit dinañ fa nag dem dem euh, seet euh, li nga xam ne moo di mbaarak ay béréb yi nga xam dafa yegg jege yoon bi ñu nag daal di ko fa dindi moom Mr Bakary Mané mu nag daal di yëkkati li nga xam ne moo di daal kaddu yi daal Kairaba Avenue duñ ko bàyyi gannaaw dinañ fa nag daal di dem ak lu mu nag daal yàgg-yàgg gannaaw bi nga xam ne wax ne daal Kairaba Avenue si biir réew mi nag daal la bokk fa euh, te nag daal euh, foofu dinañ fa dem li nga xam ne moo di nag daal um, ay mbaaraki li nga xam ne moo di ay nag daal mbedd yoo xam dafa jege euh, dinañ ko fa nag daal ay ay mbirëb yoo xam dafa jege dafa jege yoon gi dinañ ko nag daal di dindi bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom daal dina wata mu ngi sàkku si ñi nga xam ne ñoo dëkkee si diwaanu Basse Farafenni ak Soma daal mu ngi leen di xamali daal dinañ yegg si si li nga xam ne moo di daal béréb yooyu yëpp nag ba tey nag ji sax mu nag mu ngi nag artu ñi nga xam ne ñoo dëkkee si kaw nga xam ne ne daal daanaka seen i ay béréb dafa jege yoon yi nañ nag tàmbalee ranal seen i ay nag euh, mbir yooyu laata nag daal ñoom ñuy fay nag daal yegg si bu ñu sukkandikoo si moom ki ñu xamee si Mr Bakary Mané nga xam ne moom mooy jiite gàngoor gi nga xam ne jamono ji euh, ñooy nag daal yaatal li nga xam ne moo di mbeddi li nga xam ne moo di réew mi di randal li nga xam ne moo di ay mbaar ak tamit ay mbir yoo xam ne daa daanaka nag dafa gàllankoor li nga xam ne euh, moodi daal dem ak dikk ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar li nga xam ne moo dak daal mbéy mbir la moo xam ne daal lu ama am solo la fii si biir li nga xam ne moo di daal réew mi daanaka nag daal mun na ñoo wax daal lu ëpp li nga xam ne moo di koomi li nga xam ne moo réew mi mbéy mi nag daal moo koy nag daal di faral di nag di ko nag daal di indi bett na daal li nga xam ne moo di daal nawetum li nga xam ne moo di ren daanaka nag daal dina jeex bett nag li nga xam ne moo di baykat yi tàmbali na ñoo li nga xam ne moo di daal seen ay gerte ñoo ñi nga xam ne ñoo bay gerte daal tàmbali na ñoo bay seen i ay gerte bett na ay baykat yo xam ne ñu ngi si suufi Lower River tàmbali na euh, seen i li nga xam ne moo di daal ay nag daal euh, gerte gannaaw bi nga xamee ne euh, li nga xam ne moo di daal nawetum ren bi daanaka wala sax daal jeex na ba noppi ñi nga xam ne ñoo bay surtout ñi bay gerte nag daal tàmbali na ñoo bàcc li nga xam ne moo di daal seen gerte ba tey nag ñoom baykat nag daal ñu ne daal am nañ yaakaar rek daal buñ nag daal bàccee ba noppi nag daal dinañ am lu bare bari gannaaw bi nga xam ne daal xam nañ ne teel nañoo jot li nga xam ne moo di daal seen i ay engrais te tamit li nga xam ne ne moo di daal daanaka nag daal taw bi niñ ko buggee woon nag daal euh, ñëwee na noonu bu ñu sukkandiku si ay kàddoom Ibrahima Kamara nga xam ne moom ab baykat la nekk tamit ab teacher di ab jàngalekat moom nag wax na li aju si wàllu mbay nag mbir la moo xam ne lu mu doon la si rek way juróom bu góor mu ne daal daf ko doon te euh, moom nag daal euh, day bëgg lool bu buy bay bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di kàddoom moom nag daal dina nag daal li nga xam ne daal moo di mébétam mooy nag daal li nga xam ne moo di daal njëgu gerte gi nag nga xam ne nguur gi ñoo ko war a jënd si seen loxo mu ngi bees nag daal njëkk li daal ñu yokk ko mu ne daal bu fekkee ne nguur gi mun nañ koo def ñeneen fukki junne si koppari dalasi wala jàpp jàpp ñeneen fukk ak juróomi junne si koppari dalasi xam ne moom lañ am si koppar nag daal dañ ko dem jëndee lu aju dafa seer si li xam ne moo di jamono ji Fadouwa Keta moom beneen baykatu gerte la nekk tamit mécanique maanaam ab fita la nekk tamit ab béykat moom nag daal dina wane li nga xam ne moo di daal béy bi nga xam ne moom la béy ba noppi ab mbir la moo xam ne lii dina ko jaay am loo xam ne tamit dina doon loo xam ne lu muy dundee ak li nga xam ne moo di daal njaboot gi la moom nag wax na ne saa yu nawet jotee nag daal li nga xam ne moo di métier mi nga xam ne moo di métier mécanique wala métier fita bi nga xam ne moom la amee bu nawet jotee nag daf koy tegee boor dem nag daal dugg si li nga xam ne moo di tool yi daal béy gannaaw bi nga xam ne moo di béy neexut de waaye daal daal mun nga see amee tamit li nga xam ne moo di koppar eh, ñi nga xam ne ñoo di daal ay baykat yoo xam ne bay nañ li nga xam ne moo di gerte nag daal li ñoo jooytu nag daal mooy li nga xam ne moo di nag daal ay nak daal eh, eh, sekos si nga xam ne daal dafa sori seen i li nga xam ne moo di ay dëkk loolu nag daal ñoom baykat yi nag ñu ngi koy nag daal di jooytu Mohamed Ndiaye nga xam ne moom mooy managing director bu kër gi ñu si National Food Security Processing and Marketing Corporation ñu xamee woon leen si GGC moom nag daal si li nga xam ne moo di ay fan si gannaaw na ab waxtaan woo xam ne seqoon na ko ak li nga xam ne moo di baykat yi si diwaanu li nga xam ne moo di jino yi doon sax daal fisal li nga xam ne moo di jafe yi nga xam ne baykat yi nañ koy faral di dunda bokk na si li nga xam ne moo di sori bi nga xam ne sekos dinañ koy sori li nga xam ne moo di baykat yi moom sax waxoon na ne ki xam ne moo yore nombal tànk bi woon na ko pour daal mun nag amal li nga xam ne moo di ab nemeeku boo xam ne dina tax nag daal ñu nag daal mun a fexe li nga xam ne moo di sekos yi jege li nga xam ne moo di daal baykat yi moom nag daal dina loolu ki nga xam ne moom la ko santoon nag daal dina ko def mooy nag daal li nga xam ne moo di jafe mu nekk ni mooy nag li nga xam ne moo di yoon yi xam ne baykat yi dinañ a jaar yóbbu seen gerte si li xam ne moo di sekos yi yenn si yoon yi daal baaxuñ loolu nag wax na ne faaw nag daal ñoom ñi nga xam ne ñoo di jiji si ñu lëkkaloo si ak yeneen si li nga xam ne moo ay kër liggéeykaay yoo xam ne ñu si rek ron nguur gi su ko defee mbir moomu ñu nag daal si indi li nga xam ne moo ab safara Camara Ibrahima Camara nga xam ne moom daal dina wax ne nag daal li nga xam ne moo aju si rek wàllu mbéy mbir la moo xam ne daal ab liggéeyu bopp la maanaam képp koo xam ne yaa ngi koy def nag sa bopp ngay liggéeyal bu ñu li nga xam ne moo di daal kàddoom mu ne daal ndénkaane yi nga xam ne moom la jëmale si rek ay moromi ndawam mooy nag daal ngelawaay nañ fexe dugal soob soob seen nag si li nga xam ne moo di béy ra bi nga xam ne nag daal béy moom lépp loo xam ne moom nga ji moom ngay nag daal di góob Fadou Waketa moom it nag daal dina woon naam li nga xam pour koo xam ne daal euh, dugg nga si daal amaana daal euh, mun nga see dag jëlee li nga xam ne moo di ab xéwal euh, bu ñu sukkandekoo rek si li nga xam ne moo di kadduy moom ki ñu xamee si Ibrahima Kamara di nag daal ab nag daal béykat nekk tamit li nga xam ne moo di ab mécanique moom nag wax na ne saa yu nag daal mbir nawet gi jotee rek day nag daal bay lépp loo xam ne daal mu mu ngi si nekkoon dellu si li nga xam ne moo di daal tool yi